Commencer d'abord, moi je vais citer des noms. J'ai pas peur de dire la vérité. Et je vais commencer d'abord par l'enfoiré, qui est une partie de cet enfoiré en face de toi. Rapis. Rapis, pour moi, certes, il y a une chronique, ben engouement, mais Rapis, il y a du chronique. Le temps que y chronique, moi, en fait, si expliquez expliquer ben mbir, daf am solo nit ñi bàyyi xel li ngay expliquer parce que am na affaire yoo xam ne bu ci raxee rek daanaka explication bi du neex yow xapis hip hop galsen hip hop galsen de ce titre foncier ba ku la neex daggal parce que insolence bi ci sa chronique yi dafay am ñoo xam ne ñi day dem ba benn instant duñ la bëgg seetaan parce que tellement ça dérange te loolu aussi ay ndaw ñoo lay seetaan y a des gosses yoo xam ne yi ils sont moins de 18 ans buñ la déggee ak benn insolence bi xam nga yenn saaga yi ci sa biir chronique yi ñoom dañuy jàpp ne lii c'est valable lii mooy hip hop te loolu c'est pas intéressant c'est benn affaire boo xam ne bii la il faut xapis moom mu bàyyi si xel beneen bi si def mooy xapis il faut que tu portes couille une bonne fois pour toutes nga taxaw na yow mii dëggal sa bopp da ngay def ay chronique gars yi xam ne da ngay def ay chronique mais xapis bu tayee nga ñëw suba nga dellu si waat c'est pas intéressant te comme si euh, buzz bi ngay topp bu bu surtout bu bu bu clash amee

mais que mani la da nga ci war a mën a wut xaalis toog dëggal sa bopp suivre affaire yi du ko def normal mais tel n'est pas beneen bi si des mooy hip hop Galsen yow xapis bu la ñëpp yaakaar yi hip hop Galsen du am archive parce que tey sa chaîne YouTube bu nu fa demee amatul benn chronique bu fa disponible lépp nga supprimer loolu c'est c'est une erreur monumentale de ta part yëfu yëfu fekkees ndigal la loolu waroo ko def en tout cas critique boobu laa amoon ci xapis maintenant je par impiti. il faut que tu lâches l'affaire. Si tu as une meuf, il faut que tu lâches l'affaire. ndax yow impiti buñ buñ buñ muté son bi japp ne ci ngay wax quoi amul tu parles de hip hop tu n'es pas hip hop du skills